salaamaaleykum mbokk internautes ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram nag bokk na ci Real de Madrid ak Barcelone ñoo ngi xeex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 tey la ñu koy amal Égypte la ñuy jàkkaar lool bu 17h jotee waaye match boobee ku ko bëgg seetaan bu dee yaa ngi sa kër RTS dina ko maye. bu dee sab téléphone nga yor tamit mën ngaa dugg Facebook nga bind RTS 1 di nga mën a seetaan match boobee ndax ñàkk ko seetaan kat wóorut dina nekk match bu neex bu dee Égypte mi Sénégal war a jàkkaar lool li ñu bëgg moo di. am ndam ndax ndam képp moo leen mën a jagal sunu ko amul dinañu toog ca Coupe d'Afrique boobee te ñoom ñoo ko daloo bëgg gu ñoo toog jamono jii bu dee Sénégal moom lim bëgg moo di am dam gën dëggal boppam ca Coupe d'Afrique boobee kon gaañi xaar leen ko te ñaanal équipe nationale bi ak Malick Daaf mi leen di tàggat ñu am ndam lu yaatu ñu jugee ci équipe nationale u bi dem ca wa Paris bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport waa Paris ñoo ngi waajal su fekkee Lionel Messi yokkul kontraam toog foofe doxal li ñu bëgg moo di jëli doomu Égypte bi di Mohamed Salah nekk ci Liverpool jamono ji sax bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport waxtaan yi njëkk door na diggante Paris ak waa kër Mohamed Salah ngir xool nu ñuy doxalee ak moom su fekkee Lionel Messi jugee na ca Paris ñu jënd ko mu wuutu ko foofee doxal waaye Mohamed Salah nag contrat bi ko lëkkale ak Liverpool jeexagul ndax bi mu ko yokkee yàggul bu ñu yeggee ci atum deux mille vingt cinq la contrat war a jeex ci Liverpool waaye Paris nag ñoo ngi xalaat ci ay mbiram ngir su fekkee Lionel Messi yokkul contrat ñu jëli ko mu wuutu ko foofee doxal xibaar boobu Sky Sport moo ko xamle ñu jugee waa Paris ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Burkina Faso bii di Edmond Tapsoba gone gi nag défenseur bu mën la muy def la vingt-quatre ans képp la am ñaar fukk ak ñeenti at ma ngay football ca Bayer Leverkusen bu ñu sukkandikoo ci Mail waa Arsenal dañu ko bëgg Arsenal li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Allemagne yóbbu ko ci Angleterre mu doxal ndax gone gi la muy def mën na ko lool waaye Arsenal nag weetul ca mbir moomee ndax waa Aston Villa tamit ñoo ngi bàyyi xel doomu Burkina Faso bi tap soba nekk gone gu mën la muy def xibaar boobu Mele Sport moo ko xam xamle ñu jugee ci waa Arsenal ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Inter bu ñu sukkandikoo ci Tuttosport waa Inter ñoo ngi bàyyi xel doomu Côte d'Ivoire bi ak France tudd Omar Solet di défenseur bu mën la muy def gone gi ma ngay football ca Red Bull Salzburg nekk defenseur bu am taxawaay nag ndax taxawaayam mi ngi toll ci un mètre quatre-vingt-douze gone gi waa Inter li ñu bëgg moo di su fa Skriniar jógee ñu dem ca Red Bull Salzburg jéem koo jëli mu wutu ko foofee ndax gone gi mën na lool la muy def te Skriniar nag digganteeb ak Inter jeex na ndax contrat bi ko lëkkale ak club boobe saison bi ñu nekk bu

noppiwul ngir yokk contrat am muy doomu Slovaquie bii di Skriniar nekk moom it défenseur bu mën la muy def. ñu jugee ci waa Inter ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Bayern de Munich bu ñu sukkandikoo ci ESPN waa Bayern de Munich ñoo ngi bàyyi xel doomu Canada bii di Jonathan David di football ca liil gone gi attaquant bu mën la muy def la waaye nag waa Bayern de Munich gone gi nekkul seen tànneef bu njëkk ñoo ngi koy bàyyi xel am na attaquant yoo xam ne waa Bayern de Munich ñoo ngi leen di bàyyi xel nekk attaquant yu mag mën nañu caa lim Harry Kane waaye gone gi nag moom it na ca waaye nekkul tànneefu Bayern de Munich bu njëkk su fekkee daal ñi ñu bëgg amuñu ko gone gi mën naa am waa Bayern de Munich jënd ko yóbbu ko foofee mu doxal waaye gone gi tamit wa waa Manchester United ak Tottenham ba ca Chelsea ñoo ngi koy bàyyi xel muy Jonathan David nekk doomu Canada xibaar boobu ESPN moo ko xamle ñu jugee ci Jonathan David waaye Bayern de Munich googee duñ leen leen bàyyeegum dañuy jël Robert Lewandowski moom nag contrat bi nga xam ne xaatim na ko ca Barcelone waa Bayern de Munich réccu wuñu ko li ko waral moo di kat am nañu ca ab xaalis ba noppi ba ñu xaatimee contrat boobee xaalis ba ñu ca am dafa amoon bonus bu ca toftalu tolloon ci cinq millions d'euros cinq millions d'euros yooye nag benn million bi moo doon Robert Lewandowski bu dugalee vingt cinq bit foofee ca Barcelone waa Bayern de Munich am nañu un million d'euros jamono ji nag Robert Lewandowski dugal na vingt cinq bit ca Barcelone kon balaa yàgg waa Bayern de Munich dinañu jot un million boo xam ne ca Barcelone lay jugee kon contrat bi waa Bayern de Munich réccu wuñu ko. ñu jugee ci Robert Lewandowski waaye ñoo nga Barcelone ba léegi bu ñu sukkandikoo ci Esport yokk contrat wu Sergio Roberto lu mënatul ñàkk la ca Barcelone daanaka lépp yemb na bu dara soppeekuwul fan yii di ñëw dinañu ko siwal noppi na ngir yokk contrat am ba atum 2024 muy Sergio Roberto nekk doomu Espagne gone gi nag dafa polyvalent ndax boo ko footballoo latéral droite mën na faa dem doxal boo ko footballoo tamit milieu de terrain mën na faa dem doxal muy Sergio Roberto nekk doomu Espagne yokk contrat am lu mënatul ñàkk la bu ñu sukkandiku ko ci sport ñu jugee ci Sergio Roberto waaye waa Barcelone du ñu leen bàyyeegum comme ni ma leen ko waxee woon ci ndoorte xibaar yi Barcelone ak Real de Madrid ñoo ngi xëccoo doomu Allemagne bii di Florian Wirtz gone gi nag ma ngay football ca Bayer Leverkusen 19 ans képp la am waaye attaquant bu mën la muy def la Fabrizio Romano nee na Barcelone ak Real de Madrid ñoo ngi koy xëccoo ngir kenn ci ñoom jënd ko yóbbu ko ca Liga Santander ba mu doxal gone gi nag footballu